ay militants euh, taxawu Sénégal lañu euh, nga xam ne depuis daanaka mille 2017. Mhm. Euh, ñu ngi vivre situation bu difficile. ndax yombul nga am mbëbët pour askan bi am projet de société am leader boo xam ne dafa am lu muy incarné li muy incarné taxoon parti ba mu nekkoon mi parti socialiste ñu génne ko fa ak ñun fa nekkoon ñëpp. donc ñu amoon espoir ne élection bu ñëwee dinañu présenter Sénégalais yi suñu offre politique. Mm-hmm. donc ñu dem 2019 mujjul antu ndax dañ ñoo jaayoon doole dañ ñoo écarté woon. parce que jamono jooju président Khalifa Sall moo nekkoon le principal opposant au président Macky Sall. Mm-hmm. et donc bu ñu ñëwee ba tey ñu continuer ñun constance yi suñu xeex. Euh, jàpp ne endurance ak aussi gëm ay principe lu mu mun di doon parce que président Khalifa Sall nekkul sa propre personne la doon xalaat mhm. mais euh, héritage socialiste bi nga xam ne dafa nekk ci kawam ak aussi mëbët changement dëgg yi ñu war a andi bi libéraux yi nekkee au pouvoir ba léegi moom mu porter cet espoir de changement euh, loolu moo newoon le fond de notre motivation et de notre engagement mhm. donc bu ñu demee ba léegi loolu nar a teggeeku mooy mu mën a bokk ci élection yi c'est un grand soulagement pour tous les militants socialistes et toute la gauche sax mun naa wax mhm. parce que xam nañu ne la gauche pratiquement amatul woon quelqu'un qui avait le leadership au niveau national bu ko doon incarné mhm. donc aujourd'hui si on le président Khalifa Sall qui en mesure ñëw joxe une offre politique pour tous les Sénégalais représenter waale la gauche mais aussi tous les progressistes ñëpp ñu jàpp ne Sénégal war nañ defaat yeneen jéego war nañ amaat ay réformes yu profonde mhm. pour changer dëkk bi nu muy doxee jàpp nañ ne soulagement la pour ñoo ñëpp et un vent d'espoir aussi. Mhm. un vent d'espoir parce que en 2019 biñ ñu empêché d'être candidat amatuñ woon beneen choix lu dul rabattre sur un autre candidat. Mhm. qui ne portait pas l'essentiel nous de nos aspirations. donc aujourd'hui on a quelqu'un avec qui on a cheminé longtemps. on connaît ses valeurs ses ambitions pour le Sénégal et donc on espère que bu heure bi jotee ñu war présenter au Sénégalais euh, le projet de société qu'on a pour eux euh, dinañ ñu wóolu dénk ñu réew bi ñu apporter ces transformations ah,